أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ñu tuub na yéen sama jaam ñi nga xam ne dangeen a ëppal lu ne ci bàkkaar def ngeen ko sàngara woo sàngara naan ngeen ko jigéen ju ngeen tëkkutoo sëq ngeen moom lu bon lu ne def ngeen ko bu leen naagu sama yërmaande laa yooyu mu gën a yaakaar daal nga ci alquran yaa ibaadiya alladina aamanu yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim borom bi wax bu ne yéen sàcc si moom bul xalaat mukk mu tekkee ne maanaam wala yéen nangam yi euh, ay tooxi doona yu mel noonu bu bu doon nit a wax yéen yéen sàcc si bul jàpp mu gën a li ci nar li ci nar topp na nekk topp yaa ibaadiya alladiina asrafu jëfandikoo muy nga xam ne ñoom mi ngi leen di te ku lay woo ku nekk rek wax dëgg yàlla woote bi ci boppam rek daanaka boo ko xoolee rek daanaka da nga ci yéegaale yërmaande ndax ñoo xam ne ñoom lu ne def nañ ci lu bon lu ne def nañ ci lu bon ba noppi nga leen di woo ba noppi nag nga tafaat leen ci sa bopp yaa ibaadi yaa ibaadi yéen sama jaam yi sama jaam ñam alladina asrafu ala anfusihim ñi nga xam ne ñoo topp seen bakkan yi maanaam lu bonoo bon def nañ ko laa taqnatu min rahmatillah bu leen naagu ci yërmaande yàlla bu leen naagu ci yërmaande yàlla daal ci wax teg ne inna allaha mu ne foofu de bu doon ci la ci ci euh, maa yaqatoo bihi maqaam da nga naan innahu ndax comme tudd nga yàlla ba noppi maa nga caa delloo demir rek waaye dafa delloo suwaat yàlla inna allaha yaghfiru addunuba jamian inna allaha yaghfiru addunuba jamian yàlla bàkkaar yëpp lay baale moo ne bu yemoon ci inna allaha yaghfiru addunuba rek al da dugaloon na bàkkaar yëpp waaye dafa indiwaat gën a fettiwaat muy jamian waxaa waroon naa doy mu ne déedéet innahu huwa alghafuru rahim huwa alghafuru rahim ba noppi mel ne daa bëgg woon nit ñi ne leen yoon wi gën a gaaw woo xam ne bu ngeen ci jaaree ma baal leen mooy wa anibu ila bi wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al adabu summa la dellu leen ci seen borom yàlla jébbal leen yàlla seen bopp wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adhab thumma la tunsarun njëkk mbugal di leen ñëwal te bu agsee kenn du leen dimbali te ngeen dem toppi li gën a rafet ci loo xam ne wàcce naa ko mu bàyyi koo ci seen borom yàlla wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum xam xel ne kon ndekete tuub say bakkaar moo gën a fedd lépp ndax nun danoo doy waar nun danoo doy waar nun doomu aadama doomu aadama dafa nekk ci diggante ñaari jins al jin al jinsul asma wal jin wal jinsu al asfal al jinsul asma mooy malaaka yi nga xam ne ñoom ni leen yàlla saa borom binde moom ñoom du ay shahwa dañ ci moom ay xeetu bànneex yooyu mucc nañ ci ñoom laa yaxsuuna allaha maa amarahum waaye mucc nañ ci ay am na lu leen yàlla def loolu am na lu leen yàlla def loolu yàlla am na lu leen taklif waaye musal na leen ci ay shahwaat am beneen jins boo xam ne moom daa ci lool muy xayawaan yi ñooñu yàlla déglu leen dara julli loowu leen wóor loowu leen xar yeeg ba yi kenn wóor loowu leen kenn julli loowu leen waaye mujj mujj euh, ay saxawaat am nañ ko ndax dañuy am bànneex nag la ba noppi wëlbatiku nattoo ko ay saxawaat mu am ay yëg-yëg su ko jaamur bi ngeen jegee léegi mu am lu mu yëg léegi mu am lu mu yëg ndax dañ ko ko loolu dañ ko ko alal jàmbur léegi bu gisee te kenn nekk fa mën naa mu yëg mooy mbaa ko kii xeet yu mel noonu alal ba doomu aadama bëgg wa tuhibbuna al la shadiid zuyyina kooku noonu nga xam ne dañ koo nattoo mu am ay shahawaat ba noppi shahawaat yooyu ko ab benn a jaar xamal ko ne bu fekkee da bëgg am yëg-yëg. maanaam bànneex ci euh, ki nga xam ne jigéen la léegi da nga koy takk foofu lay jaar pour mu soog laa maanaam bu dee da bëgg maanaam di bànneexu ci àll da koy liggéey kulu mina tayyibaat foofu nag léegi-léegi doomu aadama ji euh, ni ko yàlla saa borom bi nekk ci maanaam ni ñu ko mooñe daal bu amul dëgg dëgg taw fexe rek daanaka day ñaan ji dem rek waaw day ñañ ci dem rek su ko defee sunu borom subhanahu wa taala ëllëg su koy gàll la mu koy gàll fekk na taxawaloon na aw lay ci kaw ba noppi kon mbokk jullit yi noo ngi ñaan yàlla mu tawfeexal nu ñuy tuub bala ñoo faatu yàlla na yàlla tawfeexal nu tuub bala noo génn àddina doomu aadama bari na lool lool lool ay jafe moo tax benn kenn ci borom xam ne yi am ku mos a laaj ne ko al istixfaar wal ba tasbiix dama lay laaj ñaar bu ma ci gën di ban laaj ñu war a gën di def daal maanaam di si wax subhanallah subhanallah subhanallah ak di wax astaghfirullah astaghfirullah loolu daal dama lay laaj ñaar mu tontu ko tontu boo xam ne bu ñu xocc la ne ko man de damaa jàpp ne yére bu tilim fóot ko moo gën a yey di ci def boo xam ne dafa tilim maanaam fóot ko ba mu set ba ku la gis eh, yëg ngay wax dëgg yàlla set lu set lu set nga sol loolu moom gën a yee nga ci laal parfum maanaam ndaxte bu fekkee ne dafa tilim lool nga def ci parfum daal xet xet parfum du yéen ah tilim tilim ba bëgg yu bàyyi loolu am na lu mu bëgg wax mooy na def istifaar na jégalu ji yàlla bala may nekk subhaana laa fekk mi ngi tax rek nekk bakkaar waaw wa an istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi law laa tastaxfiruuna allah laalakum turhamuun kenn xamul ñaata yoon li ci alxuraan kon tuub lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la sallallahu alayhi wa sallam mooy li mu mujj digal ida jaa nasrullahi walfatx wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fa sabbix bihamdi rabbika wastaxfirhu innahu kaana tawwaaba mooy ndigal li mujj ñëw ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jéggalul yàlla rasootu bi mujj muy rasootu tabu nga xam ne mi ngi am ci atum juróom-ñeent ci gàddaay gi laqad taaba allahu ala nabiyyi wal muhajirin farawàcc kon jaam bi daawa di tuub saa yu nekk bu fekkee ne mi ngi waajal faatu ñaareel bi mooy di fàttali ko faatu lu bëree bëri bëri lépp loo nar a duggati ci musiba lépp loo nar a duggati ci bakkaar na nga fàttalikul ne faatu bi ngi sa kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf noo digal lu bari lu koy fàttaliku loolu nag ndigal la loo xam ne ñu koy jëfe ci lu bëriwul maanaam bari looy fàttaliku faatu maanaam ki la gën a bari lu koy fàttaliku faatu moo lay gën a moytu moo lay gën a moytu lépp loo nar a dugg ci lu bon rek fàttalikul ne faatoo ngi sa kanam moo tax ndeysaan amoon ca jigéen ju taaru woon joo xam ne dafa mas si seetu nii ba yàgg mu ne borom këram sama xar kanam gi jàpp nga ne kenn mën a jëmut mu ne ko ah, ah, am na jenn waaye ñu nekk fii ci jànke ji ku tudd daal di jaar ci aw turam tuuti ko obbaatee la bokkoon ne ko ku daal laa xam ne moom maa ngi ragal ne mën naa mucc sa xar kanam mu ne ko ah boo ma ci kooku de yaakaaru mën a jëmut ndax ndax may nga ma digal ma dem fitnaan ko mu ne ko soo ma tàggoon jëm ci Samba. wala dem ba de dama lay tere waaye bu dee ci moom mën nga dem mu ñëw fekk ko ci jàkka ji muur xar kanam gi toog ci xar ci kanamam ne ko dama am masalam diine moom la bëgg laaj naka mu sujj rek moom moo ñori li muuroon ci bopp bi xar kanam bi mel ne xalqatu xamar mu daal di sa gàndànk ne ko yaa amatallah istadiri yow jibéeru yàlla bi du suturaaloo sa bopp lan la mu ne ko dam man maa ngi nii jox naa la sama bopp la hawla wala quwwata illa billah dama lay laaj ñetti laaj soo ma ci tontoo li nga sàkku ci man danaa ko def mooy jamono bii nii ngay sàkku ci man lii nii su doon ne malakul mawti mi ngi ñëw nii nga xam daa war a jël sa ruux gi nii ndax jamono boobu noonu doom boobu sàkku ci ne ko déedéet mu ne ko bu fekkoon ne yaa sa biir bàmmeel ñu war laa laaj sa ñetti laaj yooyu te xamagoo ba xam tontu dana jub wala du jub ndax jamono jooju doon nga sàkku ci man lii mu ne ko déedéet mu ne ko boo ñëwee nag ci kanam suñu borom yàlla mi nga xam dara ndax da nga bëgg sa jëf yi nga xam ne moom nga doon jëf mu yi ngay sàkku ci man ne ko déedéet mu ne yàlla te sant sa borom jox na la ab taar nag ragalal sa borom yàlla te sant ko jox na la ab taar te nga dem jàmm ji yàlla mu génn jàkk ji ndànk ñëw ci borom këram guddi googu daa fanaan naafil ne ne borom këram man ak yow ñun ñëpp dañuy taxawal borom kër bi ne man ab seet laa amoon waaye tey ab làbbi laa bu ji am xoola noonu ba kanam la def wa illaa loola bëgg na ko xam na ko xam ne dafa rafet ñëpp xam nañ lu rafet ñëpp xam nañ dara li am solo kay mooy maanaam ndax da téye sa bopp wala doo ko téye yéen yàlla Yuusuf ba muy waxambaane woo xam ne mi ngi ci kër ab buur dégg jigéen taxaw ci kanam ne ko hay talak lu ko toog maadallah dafa làkk ci yàlla dafa dem làkk ci ci suñu borom subhanahu loolu mooy naka lay fexe moom jaam bi bay not ba kanam ci wàllu bànneex bànneex boobu noonu ñàkk koo noot mooy tax nit ki day wàcc di wàcc di wàcc ba yées xayawaan yi ulaika kal an'am bal hum adal gis koo xam ne li muy def sama lay dañ ko def xam na gis koo xam day àgg ci maanaam wàcc ak wàcc wàcce boppam foo xam ne si li muy def sama la ma la ko def ak nit ni mu amee gëdd ni ko yàlla réer bind lu tollee asamaan ngir moom bind lu tollee ngir moom bind ay géej bind ay géej wala xad karamnaa bani aadama muy wàcc di wàcc di wàcc ba daanaka rek kal an'aam bal hum adall kon bari di fàttali faatu dana la dimbale dana la dimbale dana bokk ci li ngay waajale faatu mooy nga bari looy fàttali faatu dana bokk ci la la ci mooy ngay siyaar ji bàmmeel ñu bari sawar nañ ci euh, ñu taxawal nangam di dem visiter foofu noonu waaye visiter bàmmeel moom <laughs> kooku ñu sawaruñ ci loolu waaw bis bis nga nga xam jege yaa yaa jeg jeg dama su bopp xool nga waaru ca ña fa tëdd nga nga ñaata ñëw fi tëdd ay junni junni ñëw fi tëdd ci biir junni ci ñoo xam ni luñ ma saan ci biir junni yooyu am na ci ñoo xam ne taar bi ñu yoroon kenn mënu ko woon a dégg tey jii bu fekkoon ne def nga seen bàmmeel boo leen gisee doo leen xam xamu leen ne nit ñi nii ci dem bi nii rek la ñu wutee nii waaye egg ñi nii wutewuñ ci buñ duggoon ci ab benn avion di dem nii am na ñoo xam ne ay première classe la nekk ci biir avion bi ci biir ñun dañuy dem nii dañuy dem dañuy dem àllaaxira dañuy gis borom alal ju bëri ay gis ci koo xam ne si dégg nga ma ku ku ku rëyu juddu la. ci biir dem bi moom man ngaa ràññee ne kii moo nekk euh, première classe kii naa nga mën a waaye gis nga bu wàccee bay dox nii doo xam kan moo nekk première classe bu ñuy dox di dem nii mënoo gis nit mu xool ko ah, demee doo mën a xam mukk mukk kan moo réeroon kan moo nekkoon ku réer jaay kan moo nekkoon borom xam-xam kan moo nekkoon ku bari alal yooyu mënoo koo xamee biir bàmmeel yi mënoo koo xamee kon fàttali faatu bokk na ci li ñuy waajale faatu dem di seeti bàmmeel yi di ziyaare ji bàmmeel yi yow kot yow képp kese nga dem fa bokk na ci li ñuy ñoom ni ñu daan yi ak léegi ni ñu koy dundee la la beneen ba ca waajale faatu mooy ngëm gu wér ak jëf ju baax gëm suñu borom yàlla gëm gu àndut ak ko gëm goo xam ne kenn ko kooj kooj alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ñi gëm yàlla te kooduñu seen ngëm gi ak tooñ tooñ googu mooy bokkaale jëf ju baax jooji ak ngëm yàlla googi daa bokk te ñuy waajale faatu alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun borom bi ne ñu gëm yàlla te koojuñu te raxuñu seen ngëm gi ak bokkaale ñooñu ñooy am kóolute ëllëg ñooy am sécurité ëllëg waaye ñooñu ñooy ñi gindee kon jëf ju baax daa mat a taxaw lool ngëm yàlla itam mat a ngànnaayoo lool moo tax borom bi ba mu ne wattaqullaha waalamu annakum mulaaquuh da caa teg wa bashiril muminin ragal leen yàlla te xam ne da ngeen moom da caa teg ne wa bashiril muminin na nga bégal ñi nga xam ne dañoo gëm seen borom subhanahu wa taala juróomeel bi ci yi ñu waajale faatu mooy bind ndénkaan xamoo ba xam kenn ki doon bind ndénkaan am déet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit wërta fanaan ñetti guddi ñetti guddi lu may nga xam ne bind na ndénkaanam ba noppi kenn ku nekk ci ñi war naa bind ndénkaanam loo xam ne da koy denc foo xam ne dana ko am kum ko leeral ne ko ma xam soxnaam la moo xam bàyyam la ne ko fii de am na ndénkaan loo xam ne maa ko bind te laa ko denc ndénkaan loola mooy lan lim bëgg ci boppam kana koy sañ kana koy jullee bu di dafay bàyyi ay alal alal yooyu lu mu bëgg ñu def ko def ñan la bëgg ñu dugal ko biir bàmmeelam loolu nag li tax maanaa neexutu bind mooy boo koy bind day mel ne maa dëgg li fi des dafa bëri bi wax ju bëri sawruñ ci loolu bàyyi ba suuf sedd nga jël sa big dégg di bind li nga xam ne xam nga di bind li ñëwul bind turu diw ne moom laa bëgg mu taxawe ci wàllu sang diw laa bëgg mu taxawe ma ci wàllu jullee bona bee nga wax sa soxna ko lii sama ndénkaan la maa ngi lay digal su ma la jëkkee faatu nga wax nit ne leen lii laa dénkaane dénkaane boobu am na solo lool baraana ku génn àddina koo xam ne ñàkk ndénkaane rek tax na lu bari bari la ginnaaw ci nettali xadis bi di saxaabi bu mag nee na bi ma déggee yent yàlla Muhammad wax lii xam li ma waroo dénkaan lépp dénkaan naa te dénkaan amal a njariñ mooy day day nga ngaa dem ba am koo bindoon ne mu jullee la nga dem ba yàgg nga gis ndeysaan la nga amoon ci moom yaakaar ba tax nga naan na la jullee moom far génn mu bor moom seytaane war na ko jekk benn yoon suba da nga mën a soppiwaat fa nga defoon duróoma nga defaat ba keneen koo ci am ki am koo am bi moom yàlla xam bind ndénkaan bokk na ci li ñuy waajale faatu bind ndénkaan bokk na ci li nekk ci war na ko def nga ne tey bu faatu woon itam du tee danañ xam ne lii kat ndénkaanam la woon lii ndénkaanam la woon sunu borom subhanahu wa taala joxe na ndigal ci buntu dénkaane kutiba alaykum ida xadara ahadakumul mawtu in taraka xayra alwasiya alwasiyatu lilwalidayni wal aqrabina bil maarufi xaqan ala almuttaqin bokk na ci li ñuy waajale faatu mooy ñaan yàlla saxal la ci lislaam ba faatu ñëw ndax kenn ci noonu xamul ba xam lii muy góorgóorloo ko su néew ndax dana ci nekk ba faatu fekk ko ci mbir bu set nga gis koo xam ne seytaane jekk na ko ba génne ko ca lam nekkoon bu dee jigéen joxan tàmbali woon naa muur aw yaramam mën naa am ñaari weer la ci am seytaan ñëwaat ci la uzayyina naja la ughwiyan naja wala udilla naja juróom-ñetti maanaam engagement ak seytaan jël na ko ci alxuraan juróom-ñetti engagement yoo xam ne maanaam moom moo ne maanaam yii moom danaa ko def danaa rafetalal nit ñi ay bàkkaar danaa leen bewloo danaa leen réeral danaa leen ngalaax la axtanikanna durriyatahu illa qalila loolu moo tax da ngay jékki-jékki rek gis ku moo tax ñaan bokk ci ngànnaay yi ëpp solo yàlla saa borom faatu fekk la juróom-ñaareel ci ñi waajale faatu mooy sàmmonteeg farata yi maanaam yi nga xam ne yàlla da ko farataal julli juróomi nga góorgóorlu ci waxambaane jaamu yàlla borom bi jaaw jaamu yàlla lépp baax waaye dafa gën a jekk ci waxambaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo ne ci ñi nga xam ne ëllëg yowmal qiyaam yàlla da leen di keral yor na arash mooy shaabun nasha fi taatillah julli juróomi bu ñu nekkee ci aw waxtaan bañ nodd ñu bàyyi liñ doon def lépp dem ca jàkka ja boo duggee ci jàkka yi da ngay am lu la naqari loolu day metti ci sa yaram day metti ci sa xol ay borom bi jaaw la ngay gis waaye gis nga waxambaane yi nga xam ne gisoo leen ci jàkka yooyu boo demee ci terrain yi ñoom kott nga fay fekk man su ma leen gisee fa ñu yëkkati yu diis yooyu noonu damay defe bu ñu noppee day julli <laughs> coono bu nekk danañ ko daj mën nañoo xëy ndaw nangami kilomètre dañ julli suba julli suba ak julli suba moo gën a waaye daw cinq mel na yow bi la yàlla bind dawaat ndaw dem tali damaa day woon ah, eh, après da nga wallahi léeg-léeg ci yi nga xam ne si wàllu armation dafay fekk ay waxambaane yoo xam ne si ay ñaari waxtu boole ko yuux ñu wane ne maanaam yëf fi doole jaa ngi fi buñ noppee duñ julli timis duñ julli loolu garaaw na yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaw man xam loolu la jëndi di nekkee rek maanaam mu dal xelam rek sa xamul faatu kañ la ñëwal dafa doy waar te gis nga ki defar aw yaramam bam dëgër te defarut ak ruuxam su ngeen àndoon ci julli bu julli ko guddee tuuti rek su mu toog mën naa daw nangami kilomètre ci suuf gi waaye maanaa ña rakka yoo xam day xaw gudd tuuti day daw lu tax lu dafa defar yaram it defar ruugi moo tax ruugi tàggatuwut gis nga ruugu tàggatoo doonte borom yaram ba dëgërul sax day gis ne maanaam day mën a def lu rëy a rëy lislaam nag day bëgg équilibre ni nga tàggate ruugi noonu ngay tàggate yaram bi ni nga góorgóorlu ba nga xam ne tey jii dox daw nga nangami kilomètre noonu itam nga war a la ba xiyaamu léegi su nga di ko def. mooy bu guddi jotee nga mën a jug di naafila guddi tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun noonu itam góorgóorlu ci naafila yi waxuma la woon farata rek waaye da ngaa war a góorgóorlu sax ci ay naafila beneen bi mooy ngay moytu yi nga xam ne koo araamal yi yàlla saa borom araamal di ko moytu rawatina bakkaar yu mag yi rawatina bàkkaar yu mag yi in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima suñu yàlla ne ne su ngeen ma fi bàyyilee bàkkaar yu mag ma faral leen bàkkaar yu ndaw yi yajtanibuna kabaira al ismi wal fawahisha illa lamam ñi nga xam ne bàkkaar yu mag yi dañ koy teg na la xanaa léeg-léeg rek lamam yi nga xam ne xëy na nii yàlla saa borom bi ne tax na léeg-léeg ñu laal inna rabbaka waasi'ul maghfira kon bokk na ci li waajale faatu mooy góorgóorlu ci farata yi wallaahi jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon ne si kenn mës na gis sàppi su njëkk faat ko sàppi su njëkk kenn mës na gis mu faat yi doon ko wax ne ko te nga wut am mbaa ndax fi nga dëgg daa sori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 aqrabu maa yakuunu al abdu wa sajid li gën a rafet ci kaw suuf si mooy sujjóotal suñu borom subhaanahu wa taala dafa rafet moo tax ñi nga xam daawuñ sujjóot bu ëllëgee yawmal qiyaama dañ di woo pour ñu sujjóot na ko mën wa yud'awna lu tax ba ñuy ne kaanu yud'awna wa hum saalimuun na góorgóorlu ci di yàlla sa borom bi ni ko maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun bokk na ci yi ñuy waajal faatu mooy gaawoon ko jëm lu baax li ñuy wax taswif mooy niig niigal am na lu baax lu ñu war a taxawal fee nga naan xaaral tuuti di taswif déedéet gaawantul def lu baax wala laa raw yàlla bi muy tagg yonente yi dane innahum kaanu yusaariuuna fi lxayraat dañ daan gaawantu ci lu baax su borom yàlla ne la fastabiqul xayraat njëkkantu leen lu baax moo tax saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci buntum njëkkante ci lu dañ koy joxe ay misaal yu rëy rëy rëy rëy Omar nee na sallallahu alayhi wa sallam dafa ma sa laajal lislaam ma daal ne tey jii de moom maay jiitu Seydina Abubakar ndax yàlla jox na ma cër ba ma jëlee woon xaybar ci alal yu bëri dama koy xaaj ci digg bi indi genn wàll gi ak li Abubakar di mën a lépp tey maa koy jiitu bi mu ñëwee alayhi salaatu salaam ne ko loo bàyyi kër ga mu ne ko benn xaaj laa fa bàyyi indi benn xaaj Seydina Abubakar indi lépp ba mu xol loo ko bàyyi mu ne ko allahu rasul Omar nee na keroog dama ne ko moom tey laay noppee rawante ak yow sallallahu alayhi wa sallam mas naa toog ci bi jotaay daan ne ku xëy seeti ku tawat mu ne ma kan ci yéen moo xëy dem gunge ji ab néew mu ne man kan moo xëy woor mu ne man alayhi salaatu salaam ne ñett yi de duñ daje ci nit lu may yàlla boole ko ci waa àjjana benn bi sama alayhi salaatu salaam nee na àjjana day kenn ku nekk buntu ba nga xam ne da nga faa ràññi ko woon ca lañ lay wooyee day am ñoo xam ne buntu julli la ñuy di wooyee baabu solaa ñeneen ci buntu koor sallallahu alayhi wa sallam bi waxee bàggal Seydina Abubakar ne ko waaw ndax am na koo xam ne coow ci buntu yëpp mu ne ko waaw waaye mi de yaakaar na ci li boobu buntu sax rawante ci lu baax saari'u ilaa maghfiratin min rabbikum su borom yàlla addina dong la nan fam suuf waaye lu jëm ci fa fi ruu ila allah lay wax fa allah wala fastabiqul xayraat waaye bu dee addina fam suuf lay wax fam suuf fam suuf yi mën naa kii addina moom mënul ñu capté yàkkamti ba am fi loo xam ne yàlla bind ko ci yow moo tax ñu ñu fi yàkkamti ñëpp dañu yàqule am na ñoo xam ne koo xam ne tàmbali mu tàmbali dox rek mu am na place place boobu sama ma dara leb ci bi ma ne anam ñu ne ma néegu yàkkam xuliqal insaanu min ajal yàkkamti yonent yàlla Muhammad nee na bu leen yàkkamti su borom yàlla lim bind ci doomu aadama ci wërsëgam dana ci jot dana ci jot lim ko bindal ci ab digam dana ci am waxambaane yi léeg-léeg dañuy wax yàkkamti lool lool lool lool te su borom yàlla ñiy wut àddina ñépp nee na duñ ko am te ña ko day am duñ ca am lañ ca bëgg am lam bëgg ñu am ko ci moom yàlla la ca man kaana yuridul aajila ajjalnaa lahu fiihaa maa nashaa'u liman nuriidu man a ñii mun adduna ñépp duñ ko am te ña tey am duñ ca am lañ ca bëgg am maanaam li ma bëgg ñu am ko ca lañ loolu ñu bàyyi xel bu bu am njëriñ wut xam-xam bu am njëriñ xam-xam bu am njëriñ rek mi ngi tàmbalee ci alquran li yàlla saa wax loolu xam-xam la ko yàlla tuddee fa in lam yastajibu lakum faalamu annama unzila bi ilmillah lakin illahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi bal huwa ayatum bayinat fi sururi alladina utul ilm xam-xam dëgg dëgg dëgg mooy alquran ndax ki umpaliwu dara moo ko wax ki umpaliwu dara moo ko wax moo tax boo dee jàng alquran te da fekk da ngaa xam alquran da ngay xam xel ne kii moom di wax nii du nit moom kii moom du nit ndax li muy wax nit mënu ko xam engagement yi muy jël itam doomu aadama mënu ko jël déedéet am na laa yoo xam ne boo ko dee jàng da ngay wóor lii nit mënu ko wax nit ci bopp daa mën dox loolu kon wut xam-xam boo xam ne am njëriñ la lu am solo la ci biir lislaam nag lu ŋàññi xam-xam boo xam ne day sànq nit wala xam-xam boo xam ne si day lore ndax njibar xamoon ngeen xam-xam la jàng njibar xam-xam la de waaye xam-xam bu bon la fa yata'allamuuna minhuma ta'allum la yàlla jëfandikoo fa yata'allamuuna minhuma maa yufarriquuna bihi bayna al-mar'i xam-xam la waaye xam-xam bu ñàkk solo la bépp xam-xam boo xam ne amal na doomu aadama njëriñ l'islam day encourage sa xam-xam boobu di ko a jàng nga xam wala médecine ak xam-xam bu mu mën a doon boo xam ne nit ki moo ci wa li am solo